asalaamaaleykum euh, sama mbokk yi ak ñi nga xamante ni ñoo ngi may euh, déglu wala ñu may seetaan euh, dama ni woon tey damay def benn vidéo pour mën a indi sama xalaat bu gàtt ci situation bi nga xamante ni moom la àdduna bi yëpp di vivre actuellement si situation boobu feebaru coronavirus yóbbee na ko ba àdduna sosoo ba tey. dégg nañ fi lu nekk gis nañ fi lu nekk ay génocide guerre mondiale holocauste tsunami lépp loo xamante ni musiba la rek bu wër dégg nañ ko fi wala ñu gis ko wala ñu jàng ko waaye nag kenn musul dégg benn balaa wala benn musiba boo xamante ni mas na indi situation bii coronavirus bi indi ci àdduna bi yëpp tax ba àdduna bi yëpp ku nekk tëju réew yëpp tëj seeni seeni bunt nit ñëpp tëj seen bunt kër ku nekk di tal sa bopp di sàmm sa bopp di aar sa bopp mu nekk situation boo xamante ni gannaaw amuñu mesure ay ay instrument de mesure yu ñu ko mën a xayma nu xoolee ni lii kat mosu fee am war na noo xam ni lii du ay caaxaan donc c'est extrêmement grave une situation extrêmement grave ba tax na situation bu fekkente ni bu mel nii am na am na ñoo xamante ni ñoo ci war a wax ndax loolu la seen xam-xam màcc te niñ ciy waxee mooy jéem a trouver ay solution yoo xamante ni dana apaiser nit ñi dana wàññi panique bi dana wàññi Euh, tiitaange gi nga xamante ni moom la nit ñi tiit te ñooñu am naa yaakaar ni ba yëf yi dooree ba nëga ni jusqu'à présent et eh, ku si nekk ñu ngi jéem a gëstu ñu ngi jéem a wut ay pexe ñu ngi jéem a wut ay solution ñu ngi jéem a wut ay garab antoogul nag waaye am na nañu yaakaar ni incha allah gannaaw ñoom loolu mooy seen xam-xam yàlla dina leen si jàppale jàppale ci àdduna bépp ndax lii balaa bu doy waat la ma gis nag ci mbirum communication yi nga xamante ne ni ñaa ngi koy def surtout ci réseau sociaux yi damay ñaax rek duma ma donneur de leçon de waaye dama xam ni bari na ñoo xamante ni xëy na peut-être ñu ngi dugal te li ñuy dugal ci yàq la gën a taxaw ko defar léeg nga gis ay charlatan léeg nga gis ay nit ñoo xamante ni fu ñu jëlee information dugal ko mu jëm ci li nga xamante ni moom mooy mbirum euh, faj wala lépp loo xam daal mu ngi jëm ci coronavirus yow doo spécialiste lu nekk nañ ko bàyyi ak ña ko moom te communication dafa nekk lu doy waar information dafa nekk lu doy waar donc ñu moytu yenn publication yi nga xamante ni ci biir réseau sociaux yi parce que publication yi mën naa jur musiba moo xamante ni kenn xamul ndax am na ñoo xamante ni. lu nu gis danañ ci jéem wut ay pexe jéem koo def mën a leen indi loraange donc il faut faudrait faire attention ci lépp loo xamante ni ñu ngi koy publier am na ay formes aussi de publication yoo xamante ni war nañ koo mën a moytu parce que naan ana borom alal yi fu nu nekk ana footballeur yi fu nu nekk ana diw fu mu nekk ak alalam ki nga xamante ni moom moom alalam liggéey ko. amul benn donneur de leçon boo xamante ni moo ko wax fu mu koy dugal ak fu mu ko dugal te su fekkente ni am nañu seetlu tuuti ñu nga xamante ni ràññee nañ leen surtout ci côté football bi je crois que ñoom xaaruñu feebaru coronavirus pour def li ñuy def ndax lu nekk def nañ ko ci dëkk bi tabax nañu ay jàkka tabax nañu ay hôpitaux dund nañu fi ay nit def nu lépp loo xamante ni rek alors doomu réew mi ci boppam. war nga koo def te amul ci benn obligation parce que ñoo dem liggéey seen xaalis ki liggéey xaalisam nag kenn du ko jox leçon boo xamante ni nii la ko war a defee donc ñu moytu euh, yu mel noonu képp koo xamante ni aussi am nga yéene joxe sa dërëm pour ngir feebar bi da nga koy joxe te yàlla tax ci sutura parce que joxe boo xamante ni dafay siiw ñëpp xam ko donc dafa am loo xamante ni lenn nga sa jublu te nit. bés bu yàlla sàkk borom alal yi bu njëkk senegal dan daan bàyyi ba guddi ñu jël seen tànk ndànk dox dugg ci benn kër def fa la ñuy def ndànk ci sutura génn dem seen yoon ñun loolu lañu xam loolu lañu baaxoo donc nanu xool naka la ñuy gérer mbir yi nga xamante ni mooy jëm ci diggante nit ak nit euh, am na ñoo xamante ni aussi dañu bëgg a jël mbir mi def ko mbirum politique je crois que fi mu toll politiciens yi nan nu dimbali fi mu toll kenn talul politique kenn talul politique kenn talu fi waxi politique amul dàggasante amul ŋaayonte tey àdduna bépp danoo war a def benn dànk danoo war a def benn say ndax am na nun doy sëkk loo xamante ni moom la ñu gën a mën a tal ay waxi jonganteeg ay waxi politique donc képp koo xamante ni rek am nga sa avis ci loolu wax dëgg yàlla mën nañ koo denc ba yàlla teggul ni lii ñu delluwaat nag buum ca mbooy mbooy su boobaa su waxi politique jotee ñu wax ko waaye fii ñu toll wax dëgg yàlla war naa mën a matan cee mën a mucc gannaaw ba loolu wéy itam am naa yaakaar ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ŋànk euh, réew mi man ci réew mi nga xamante ni ci laa bokk képp koo xamante ni alors am na benn euh, impacté nga wu nga ci mbir mi de je crois que réew mi ci boppam war na laa mën a taxaw parce que société ab chaîne la boo xamante ni maillon bu ci nekk ci biir dispositif boobu la bokk rawatina nag ñi nga xamante ni seen liggéey yépp taxaw na nekk liggéey boo xamante ñu ngi ko teg ci euh, rassemblement ak spectacle loolu euh, mu ngi nekk. waa théâtre muy nekk ñi nga xamante ñooy feej muy ñi nga xamante ñoom ñooy tànt jàng yi muy ñi nga xamante ni alors seen liggéey mu ngi màcc ci euh, location wu matériel de sonorisation ak ay ay ay ay ay ay ay ay chaise et cetera maanaam genre ñi mel ni ñoom ay xel comme ak euh, ñi nga xamante ni dañuy lié ay sonorisation ah kese ak ñi nga xamante ni seen liggéey moom mooy di defar clip yi muy clip bu jàngkat ak clip bu leneen ak ñi nga xamante ni euh, mooy euh, ñi def studio d'enregistrement nga xamante ni seen liggéey yëpp guddi la te lépp ñu ko teg lu teg ci euh, li nga xamante ni moom mooy liggéeyu guddi bi ak ñi nga xamante ni artistes yi woon woy fi mu doon woy yëpp tëj nañ leen amatuñu fenn fu nu fu exprimer wu seen spectacle seen tournée yëpp yàqu na et cetera et nga xamante ni la liste est extrêmement exhaustive mu nekk ak ay intermittents du de du du spectacle yoo xamante ni xëy na peut-être ñu bëree baree baree bare bëri euh, boolewul leen ci lim bi mais ci lañu bokk muy ñi nga xamante ni ay bindkat lañu ay parolier muy ñi nga xamante ni ñoom ñooy yóbbu euh, ñooy def affiche mooy ñi nga xam et bari bëri nañu euh, ñoo xamante ni ils sont impactés donc ñooñu ñëpp war nañ leen a mën a jël en considération jàppale leen ci li nga xamante ni. Euh, moom mooy euh, au moins pour quelque temps ñu mën a am loo xamante ni mën ko dundee waaye daal comme li ma leen di wax rek bés bi yàlla sax feebar bi amul dara loo xamante ni war na la cee mën a muccal lu dul nga topp conseil yi nga xamante ni moom la ñu digle digle yi nag c'est très simple wàññi génn bi soo génnee ba ñëw na nga raxasu ba set dee utiliser gel antiseptique soo yëgee ni yaa ngi sëqat nga fexe ba mel ni kuy dab. lem sa conco sëqat ci wala nga tisli ci di jël euh, sa bakkan di ci di ko di ci taf mouchoir pour mën a ñandu di sori nit ñi bàyyi rassemblement yi te même toogaay sax comme nee nañu ne ku nekk na nga jege boo ngay jege nit war na mën a def un mètre ñu jéem koo respecté te ku nekk toog sa kër ku nekk toog sa kër couvre bi li ko indi confinement bi li ko indi état d'urgence bi du ko indi lépp du pour njiitu réew du pour Masamba du pour ma Mademba pour mën a aar nit ñi la donc kaay ma aar la nag su demee ba nattu di ca dal ay leneen di la ca dal je crois que war nga mën a xoolaat sa bopp ñun nag sénégalais ñoo mel noonu bari na nu xam-xam bari xam-xam boo xam ni lu nekk danañ ci def sunu làmmiñ lu nekk dina danu yaakaar ni ñoo ko gën a xam nit ñi te nit ku nekk da ngaa war a yem fa nga war a yem. ñu yore xam-xam bi yore xam-xam bi di xelli ñi war a déglu war a déglu voilà donc lii daal laa amoon tey ci lu may wax euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu réew mii yàlla na fi jàmm am di ñaanal suñu réew mii yàlla na mucc ci lépp loo xamante ne rek mu si bala wala muy balaa buy ñëw fii ci bi jaay Seydi Lu Jóob barkeb sëñ Babacar Si barkeb Seydi Aj Malik barkeb maam Limaamu Laahi barkeb Sëriñ Tuuba barkeb Imam Baay barke xalifa yi Njaasaan yi barke xalifa yi Canaba yi barke bépp sëriñ boo xamante ni euh, am nañ si ñoom yaakaar ndax ñun yaakaar dong la ñu am li yàlla nag moo yor mbir mi te yàlla li mu yor ñun ñoo ko moom ñu yaakaar ni incha allah dina dinañu yërëm ñi nu yërëm ba teggi nu natt bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam